ko woon muñ mu soppi affaire ba xuloo xuloo ba yegg na ci wax yonent yàlla Suleymaan ni ko xaalis bi fi nekkoon yëpp fooye nga ko ndax sa coro yi mi ngi bëgg a ëpp baaraam laa ciy teg ku ko waxoon sëriñ Touba wala Alaaji Malik guddi tey ji fekk na réew mi tàkk na ku dee ni Suleymaan bàyyam bi ko jur di ko wax ni ko xaalis bi fi nekkoon yëpp foye nga ko ndax sa coro yi te bi mu koy wax loolu booba Suleymaan mu ngi yëg ni baayam Daawud tëdd na doomam mooy saay-saay waaye yonent yi saay-saayuñu moo yàqu waaye yonent yi yàquwuñu te ku mës di wax lii di ko fësal nii te tuubuloo ko danañ la tiital ne yàlla dana la toroxal ba ñëpp yëg ko